weer bi daaw defoon nañu li ñu def jeune de l'horticulture directeur Macoumba ñu koy sant di ko gërëm moo ñëwoon présider ko ñu bëggoon defaat lu mel noonu ren mais yàlla dogal indi dogalam ak feebar moo ñu ne mën nañoo lëkkalee daanaka li ñuy bëggoon a def ren ak lu ñuy def nii tey jii ni parce que daaw aussi li ñu defoon dafa amoon thème thème bi mooy la relève dans l'agriculture ak euh, la l'intensification mooy ndaw ñu dugg ci mbay mi aussi ñu gën a ko indil ay daraja ci wàllu rendement ren tam bi comme directeur ni mu ko waxee dañ ko aj ci mbir mu contractualisation mooy nga jaay bala ngay bay loolu nag defe naa ne euh, solo bi dafa lëkkaloo ak bële parce que euh, mag ñi gaa am nañ ci njariñ mais ndaw ñi dina leen gën a xiir en tout dina leen gën a encourager pour que ñu mën a euh, dugg si mbéy mi parce que xam nañ ne déjà dina ci gis njariñ mbéyam noor notamment maraîchage bu la horticulture en général mooy fruits et légumes dafa am diir boo xam ne mën na koo dékku pour diir boobu passé mën naa am yàqu-yàqu am ci loolu tax li ko mën a sauver mooy ay dencukaay dencukaay yu mucc ayib yoo xam ne dañ koy méngale ak euh, nature produit boobu pour que ñu mën ko sàmm ba jëmmi jamono buñ ko soxlaa ñu mën koo génne donc dencukaay yooyu mën naa wax ne farata la ci lu jëm ci mbéyum noor ñi nga xam ne ñooy liggéey ak irrigation gasoil ñoom ñoom ñu ngi gën a euh, ñi nga xam ne ñooy def solaire ñoo ëpp rendement mon gën les coûts de production foofu la le a donc bu fekkee say charge dafa néew ci production naturellement ça am yokku directeur. la pénibilité des travaux surtout dans l'irrigation l'exode mooy jafe-jafe métti bi c'est parce que waxuma la mag mais a mais bu système innovant rendement ensuite dina coono pour liggéey je crois que euh, l'un dans l'autre dina tax ba vraiment ñu gën ci sawar te gis ngeen fi ñu jaar yëpp parce que ñu nekk ci système yooyu ay ndaw lañu te defe naa ne wane nañu seen manoore ak seen xereñte terewul nag ñu ngi gën a ñaan nguur gi ñu accompagner leen ci dynamique boobu. dafa ñëw wuyu si invitation wu ay kuréelu béykat kuréelu béykat boobu mu ngi tudd fédération des producteurs maraîchers des Niayes xam nga ni ministère de l'agriculture. ci loxoy professeur Moussa Balde dafa encourager ci jamono yi li ñuy wax contractualisation maanaam béykat bi jaay mu jar lañ mbéyam balaa koo béy balaa ji mu jaay ñom loolu la ñu def ci ak Sénégal ñun direction de l'horticulture nag loolu ñu ngi koy jàngale ci projet bu ñu bokk ak waa Japon bu ñuy wax JICA projet bu ñuy wax chef projet boobu li mu tekki mooy nan la ñuy fexe bu béykat bi moom boppam mën boppam mu jaar ci mbéy moo nga xam ne moom moo koy décider boppam ci xam kañ lay bay ak lan lay bay waaye day fekk mu xam kan la koy jaay ak ñaata la ko koy jaayee loolu projet boobu ñuy wax CHEP ñu ngi koy yaatal ci réew mi ànd ko ak waa ANCAR ak yeneen i kuréel. production pomme de terre diggante 2012 ak léegi am na jéego am na jéego yu mag jóge na ci fukki junniy ton ak juróom dem ci téeméeri junniy ton ak ñeent fukk daaw ren ñu ngi xaar téeméeri junniy ton ak juróom fukki junniy tonnes lu mu néew néew gis ngeen tool yi ni mu te sant suñu borom gunóor amu ci yàq amu ci dara amu ci yal na yàlla def mu yegge ni ñu ko gisee bu loolu amee du ñu am lu yees téeméeri junniy tonnes ak juróom fukki junniy tonnes te ñu ngi soxla juróom-ñeent fukki junniy tonnes ci Sénégal at yëpp kon xam nga bu ñu amoon fu ñu ko dencee mën nañoo jaay sax bitim réew pomme de terre. kon dencukaay yi naaj ñëwaat léegi farata la.